si téeméer ak ñaar fukki ak ñaar ñett téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari test juróom ñoo si positif juróom yi ñaari kaa importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal dem ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk juróomi cas fii ci senegal juróom fukk yi ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jëlee ak benn cas bu ñu évalué bu ñu évacué may yëgal ne fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk si hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën ko gagné Mesdames, Messieurs, chers euh,